الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني إني أسوق موضحا لك خطة تبدو كمثل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 wa ala alihi wa sahbi ajmain allahuma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilman wa amala mutaqabbalan ya arhamar rahimin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu di leen balaax di leen ma masawu di sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may jataay bi ndax ko na jataay yi nga xam ne yàlla koo gërëm kon ku yàlla defal tawfiix nga teewee jataay bi war nga sant yàlla bu baax képp kuy dégg sunu kàddu it ñu ngi lay ñaan nga génn ànd ak ñun ngir ñu ànd ci xéewaloo jataay bi nga xam ne jataay yàlla gën a bëgg ci la bokk ñu sant mboolem imaam yi nga xam ne it ñu ngi ci jataay bi ñu ci jiital ki nga xam ne moom lañ sargale bés bi muy sëñ Maxtaar Saar di boroom xam-xam di imaam am taxawaay yoo xam ne taxaw na ko ci ginnaaw raay ak xombal mu rawati sax thème bi nga xam ne moom la al oustaz Alioune Sall war a waxtaane muy wàllu ndaw ñi ak lépp lu leen di defar ak lépp lu tax mu tegu ci yoonu siraatul mustaqim loolu moom ci la nekk ci jàngal xale yi ak tarbiya leen ak teg leen ci li nga xam ne mooy siraatul mustaqim bay tax ñu am njariñ ëllëg ñeel seen bopp ñeel seeni waajur waaye ñeel réew mi taxawaay boobu taxaw nag ci koñ bi moo tax kii di Modou Maar jël bés bi sargale ko kon moom ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ndokkeel ci bés bu màgg bi nga xam ne bés bu rëy la boo xam ne ku nekk bëggoon na ñu sargal la ko su ko defee ñu wàcc ci Modou Maar nag Modou Maar li ñuy wax ne yàlla léeg-léeg day tànn ci jaam yi ñoo xam ne da leen di tawfiixe ñu nekk xuddaam xuddaam mooy lan mooy ñi nga xam ne bu nit ñi toogee ñoom ñooy jóg takk seen ndigg nekk ci naaj wi ak tàngaay wi ngir fexe ba ñoo ñu toog nekk ci li kon loolu ci la Modou bokk képp ku fi teew xam na ne yitteem yépp ak taxawaayam yépp mooy xidma doomu aadama mu ràññee ko ci lool nag te yemalewu ko ci benn kër képp ku jóg ayee ak foo mën di féete ci wàllu tariqa ak foo mën di féete ci wàllu waaso ak foo mën di féete ci wàllu famille Moodu moom teg na lépp jóg ñëw xidma la lay yàlla kon loolu xombal gépp dañ koy seede te defe naa kuñ ko wax di nga xam ne loolu dëgg la li mu jë def rek ci jamono jii mooy fexe ba dajale a xaalis jënd ay paan paan yoo xam ne bu nit dawloo wala nit am xew mu indil ko ko jox ko ko te du ko ci laaj dara def ko ci tuuti koñ bi ngir nit ñi mën cee raxasu ngir mën a jëfandikoo ci bés boobu ba mu jógee it yemul foofu daa woote képp ku ci mën a dugal loxoom ba ñu dugal ci ay bool yoo xam ne it dañ koy jëfandikoo loolu lépp soo gisee ñu koy wax dafay nekk ab soññee ci ndaw ñi ndax ndaw ñi dañoo war a waxtaanee soññee la ci ñoom ñuy roy ci ñu mel ni Modou kon du ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant di gërëm di tatagal ki xam ne mooy chef de quartier Adama Ndiaye ndax dañuy wax ne boo dugg ci dëkk dangay ngay jaar ci bunt ba te moom la fi yàlla teg ci quartier bi mu nekkal fi maire dëkk bi kon moom mën nañ ne ci quartier am la nekk kon teewaayam dañ koy rafetlu di ci am mbégte di sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo tax bés bi taxaw tàmbale ko ci ñi taxawal bâche yeeg organisation bi ak ñi def annonce yeeg ak ñi nga xam ne ñoo taxawal lépp lu fi taxaw tey ñu dugal seen loxo ak seen alal ak seen ñaq ci bés bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di boole di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla dolli seen wërsëg. ñi ngi gërëmit ñi fi teew ñëpp nag muy góor di jigéen di mag di ndaw ak ñi nga xam ne fas nañ fee teew ba tey kon ñoom ñi fi teew ñëpp rek ñi ngi leen di sant ñoomit di leen gërëm ci seen teewaay ndax da ngeen a wuy si woote bi yàlla ndax yàlla moo wax ne yaa ayyuhal lazina amanu istajibu lillahi wa li rasulihi ida daakum li maa yuxiikum borom bi moo ne bu ñu leen wooyee ci loo xam ne dafay dundal seen diine da leen yokk xam-xam di leen dundal ci wàllu ruux di leen dundal ci wàllu yar di dundal ak mbokk ak kóllëre bu ñu leen ci wooyee na ngir wuj te su boobaa nag ki woote wootewul waaye man yàlla maa woote moo na mu ne sa jibul ilaahi la wax wuy ji leen yàlla kon fii ku teew la yàlla nga wuy si kon ñu fi teew ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay su ko defee nag ginnaaw loolu euh, dañuy wax ne us al oustaz Mansour Ndiaye mi nga xam ne moo nekk ci kër si Mansour si fi ci xombal moom it bokk na ci ñi ñu jëmmale bés bi ndax Oustaz Mansour li Oustaz Makhtar nekk fii loolu la nekk kër sëñ Mansour mooy yar xale yi tarbiye leen di tekki siraatu mustaqim na ko sëñ Mansour sampe woon teg ko mu koy def loolu ba tey dund ci kon moom it ak seegul waaye ñu koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla guddal fanam ndaw la loo xam ne royuwaay la ci defar li nga xam ne mooy ndaw ñi tax ñuy waxtaan tey ginnaaw loolu nag ñu ñëw ci al oustaz Cheikh Aliou mi nga xam ne moom ñëw tey fii ci Xombal te fas yéene ñu ne baaxee ci manaabi ilmi yi nga xam ne daf koy ball di ko jaarale ci rajo yi di ko jaaral ci conférence yi te lépp rek mooy tawsi an nitaaxi tarbiyat wa taalim yaatal li nga xam ne mooy taxawaayu xam-xam ak yar ba ñëpp xam ko di ko déglu di ko jariñoo ñu bari soxla ko nag tey xombal masha allahu yàlla jaarale ko ci Modou Omar ba tey mu teewal ni fii sagal ñu ci bés bi fas yéene ñuy waxtaanal lenn ci taxawaayu ndaw ñi ndax day tem boo xam ne dafa jara waxtaan moom nag ziyaaram bi dañ koy mën na tënk rek ci ñaari xadis yoo xam ne mën nañu wax ne <clears throat> teewaayam ak képp fi teew rek li dugg ci xadis boobu bi ci jiitu mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne majtamaa qawmun fi baytin min buyuti llaahi yatluuna kitaaballahi wa yatadaarasuunahu fi ma baynahum illa nazala nazalat alayhim sakina wa xashiyathum almalaika wa dakarahum allahu fi man inda yonent bi nee na mbooloo duñu teew ci benn jataay moo xam ci néegu yàlla yi la moo xam ci suufu baas yi la ñu jàngalante téereb yàlla bi di ci yeetante lu dul ne yàlla day wàccee ci ñoom asakina ak dal dal nag moom la ñëpp wut mooy xol bu dal boo xam ne mooy nafsul mutmainna waaye malaaka yi dañuy ñëw teew ci seen jataay yooyee tala seen laaf yi di leen ko yiir ak di leen ko sargale waaye yàlla yi day teew ci malaaka ya ca malakuut lay taxaw ne xool leen jataay bële ci kaw suuf ña nga dajaloo di ma jàng sama téere bi da ci yàngalante ak a yeetante xam leen ne gërëm naa leen loolu rek doy na sëkk ñu xam ne jataay bi jataay bu am solo la beneen xadis bi yéen ko da wax ne inna xawla al arshi manaabiru min nuur alayha qawmun libaasuhum nuur wa wujuhuhum nuur laysu bi anbiyaai wala suhadaa walakin yahbituhum annabiyuuna wa shuhadaa fa qaalu ya rasulallah sifhum lana fa qaal hum almutahabbuuna fi llaahi walmutajaalisuuna fi llaahi walmutazaawiruuna fi llaahi yonent bi nee na yawmal dina am ay sooroor yoo xam ne sooroori leer lay doon sooroor leer lay doon am aw mbooloo mu ne ci kaw sooroor ya seen yére ya seen yére ya di leer seen kanam ya di leer du ñu nekk ñu ay yonant du ñu ay malaaka du ñu ay suhadaa waaye yonent yi ak malaaka yi suhadaa yi dañu leen di ñee ci leer googu ñu nekke saxaaba yi yaa rasulullah kon melal ñu ñooñu mooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ne dañoo soppante ngir yàlla kon jataay bi jataay bi soppante la ngir yàlla moo ñuy toog di toogandoo ngir yàlla kon dafa ñëw ziar si xombal tey euh, ngir saa fonteeg ay bokk jullitam kon Oustaz ñu ngi lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban kon loolu ci bëggoon tënk ci ay kàddu euh, waxtu nag dafa day teel a guddi moo tax ñu bëgg a wax jooy incha allahu programme bi ni mu tëddee rek mooy dinañu ñaan jox imaam bu ñaan ñu tàmbali liggéey bi su ko defee chef de quartier yëkkati kàddu yu tënk rek ne su ko defee am na ay jawaïs mooy ay sargal yu war a sargal oustaz ak leen ñi fi nekk loolu lu di yàgg incha allah bu defee ñu tàmbali waxtaan bi su noppee oustaz incha allah ñu daal di ñaan.

mbokk yi asalaamaaleykum wa barakaatu. yal na nu yàlla may dund ko barkeel. yàlla ñu fekk déwén te weesu ko. yàlla borom bi yokk barke mbooloo mi yokk barke ñu doon sabab dajeek mbooloo mi. am nañ mbégte lool ci ñëwaat ci péncum xombal danaay faral di ñëw xombal ñu sol doon booy ca côté bële daanaa ñëw ci ñoom kër sëñ Mansour gii fi xayaat yi ci ñëw ñëw naa fiit benn conférence boobu xamatuma ban quartier la hmm? rajo xombal ñëw naa fi dëj bu metti woon lool ca kaw tali ñëw naa fi yolli ko fekk si saa si mbubb mii toog ngeen may ma ma nuyu ko ñaanal ko ndax kenn la ci sunu rajo Sud FM ci ñuy def wax sa xalaat maa ngi nuyu Serigne njaay mii ma doon nuyu sànq di ma wan ne doomu sunu wëllëre la alaaj Njaga Njaay maa ngi nuyu ñëpp di am mbégte ci liñ ma woo fii nag ndax bëgg ma am tuyaaba ndax li may bëgg a wax ustaas mi bu toogoon fii wax ko waxin wu gën a jekk bi ma koy bëgg wax ku dégg kalimaat yi mu doon wax xam ne li ma wax dëgg la ñuy toog sama kanam ñooy waa Ali Imran TV sunub chaîne la xanaa bala ma fay jóge incha allah danaa wax ñëpp ñu abone oto bee taxaw nii ci sunu kanam kee mooy sunu DG commercial ñu ne say nab na bi nuyu naa ñëpp imaam nuyoo baa noonu séddale ko gaa yi yàgg délégué li des ci ngoon gi dañoo bëgg a waxtaane taxawaayu ndaw ñi aha kay ndax suñu déggee ki ñu doon gërëm ak sant léegi Seydina Modou Maar danañu xam ne am na lu xew benn joxoñ ndax ndaw jar na di waxtaanal ndax lépp lum taxaw bëgg koo def moom ndaw loola mën na koo def moom ndaw ndax force boobu la ko yàlla may waaye buñ ko gàttanduwul jàppale ko ca force ba mën na koo yóbbu fu ko dul amal njariñ ñii football di am ay milliards li tax ñu mën koo am mooy li ñu nekk ndaw mais pas buy football gisagoo ko am na as bu boo ca xasee àgg sa équipe daf lay abale ba mu jaay la mbaa nga jël say bagage mbokk yi ndaw ñooy atfaalul ams ndaw mooy ki nekkoon gone démb tey mu nekk ndaw léeg-léeg tubaab bi ni jeune dafa naan koy waxe al euh, islam ni wala arab ni shabab démb gii rek ñoom ñoo doonoon gone yi goney démb yi nag ñooy yenu mbaarum tey mi gone démb yi ñooy yenu mbaarum tey mi képp ku sa mbaar taxaw ci àdduna sii penk ba sow gone yee force bi war a am su ba su ëllëgee itam gone yee doole ji nit ñuy sukkandiku ëllëg gone yee moo tax ku bëgg a tabaxum pénc boo leen fa bàyyi li nga tabax du jàkk waxtaane gone yi nag tekkiwul mag ñi bokk leen tekkiwul loolu ndax mag ñeeg ndaw ñi li mag ñi yor ndaw yi dañ koo soxla li ndaw yi yor mag ñi soxla ko moo tax ñoom ñaar li leen di jubóole moo gën li leen di féewale fexe ba mag ñeeg ndaw ñi juboo dafa woon genn góor walla ay góor ci benn dëkk buur ba jékki-jékki ne bëggatul gis benn paa dëkk bi commencé di rey paa bi mu reyee paa yi ba paa yi des benn paa góor gi moor xujja mu ne xale yi li may bëgg a wax bu leen defe ne ragal a dee ma koy wax ndax samay morom dee nañ waaye gis ngeen bu ngeen leen rey bu ngeen nu reyee nun ñëpp du ngeen ci génn bu leen neexee nag rey am xale bu ne boobu paa bi lu wax dëgg la ah, am ñu ne waaye dañ ko rey waaye bañ bàyyi fa paa ba buur toog fukki fan ak juróom woolu leen ñoom jeunes yi ñépp ne leen rey ngeen paay ñu ne ko rey nañ paay yépp mu naa ah, man de dafa am lu ma leen di sant muy sama deuxième tâche ci yéen lu bëgg buur ne leen damaa bëgg ngeen tabaxal ma benn benn benn palais boo xam ne du laal suuf lennam du laal suuf may naa leen nag ba le vingt cinq décembre gone di jaaxle di jaaxle ba am ci ñoom ku ne góor gi muur Khoudia reyu nu ko woon nan dem seeti ko ñu ñëw ne ko dañoo amuk jaaxle mun leen lu xew ñu ne ko buur bi nee na nañ ko tabaxal pale ci ci jaww ji du laal suuf góor gi ne bu ngeen demee ngeen na ko ciment bi ñëw na ak béton fer lépp ñëw na parle bi daal mooy ñu dem ngër dël ñu fi muy jaar xale del si ci boor na ko waaw macha allah bëgg nañu le vingt cinq ñu tàmbali waaye nag danoo bëgg ngër dël ñu fi fi palais bi di jaar buur ba ne leen réew leen paa yëpp waaw wolof daal mag mën naa ba cim jeex na ay bu ñu rawoon pa keroog naka la ñuy defee pale ci ci ci jaww ji ndaw loo gis muy dox sunu borom def moom ci moom bu ñeme dee ku màgg yàlla nangu ko bariwul mag mu ñeme dee laaj ko Senghor daana ko bind waaye ndaw dañoo am benn énergie boo xam ne moo tax ñu ñeme dee yéen a ngi seetaan Palestine la fa dal métti lool waaye teewul ndaw ñaa ngay far ay xeer di ko sànni ña yor ña yor lu tax ndaw ñeme dee mooy moom àdduna lébalagul ko dara àdduna lébalagul gone yi dara waaye mag mu fi seen nag am na lu ko àdduna lebal mu bëgg a fay àdduna àdduna lebalaat ko moo tax mu ragala dee daay ndaw moom yoonam nekk ci loolu ndaw forsam boobu lay mën a taxawe loo ko yan mu yanu ko loo ko yenu mu yenu ko te it lu lu xew tey ndaw mën naa fexe ba mu da ba ëllëg mu dàq tey ndaw mën na ko ndaw kon yooyu yépp a ngi ci moom force yu ñeme dee tax force yu am jom a tax force yu mbañam rus a yooyu yépp mu ngi ci ndaw dafay aajowoo nag yooyu nga xam ne moo nekk ci moom ñu jëfandikoo ko ndax léeg-léeg yàlla mooñ ci nit lu penc mi bëggul mu ëpp waaye mu mu yem baax na jigéen ñi tey ku ci nekk ci wàll googu lu duy paanum ndox nekkaay yen ma am na fu jigéen di toll dootul soxla ko ko yen boo ko tegaloon dugub ji muy soq wala moo koy wal bu subbante wuti léegi tey mu dóor ko mu daanu loolu mooy ndaw seen taxawaay ci pénc bi mën naa defar lu ne ma tàmbali sama tomb bu njëkk mooy marxalatu shabaab doomu aadama borom bi ko bind def ne daf koo xalq min daaf summa jaala min baadi daafin xuwa summa jaala min baadi xuwatin daafa wa shayba doomu aadama daa benn état boo xam ne bi mënul dara mu am état boo xam ne tëliwul dara beneen état bi ngi ñëw du man dara xalaqakum min daaf zéro ba ba quatorze ans yi demi su ma jaan baax di daal fin xuwa daafu bee daal di dem xuwa daal di ñëw lu ne ndaw man ci état boobu muy 15 ans ba 55 li tàmbalee cinq nag jëm bàmmeel 55 jëm bàmmeel bët bu set nga gën a tëleli di ci démb 55 jàpp jàpp 60. xanaa muy góor guy espoor mbaa muy bay ne ci tool yi waaye bu dee góori Dakar yee il est <laughs> waaw xam nga kuy liggéey ci kuy liggéey ngeen baal ma de kuy liggéey yaa ngi ñu la retraité retraité day yokk fukki at ak juróom ci sa dund gi waaw loolu nga ci xalaat kon fukki at ak juróom ba juróom fukk ak juróom loolu lañ tuddee ak ndaw ak ndawe ku ca toxoo nag ci mag yi nga jëm bi nit ki tollee ci diggante ci quinze ans amagul cinquante cinq nag lépp lu ñu séentu ci moom mën na koo def lépp lu mu jàng dana ko xam jamono jooju jamonoy tabax la ak récupérer ak jin ak jariñoo bu amee quinze cent ba cinquante cinq moo tax ndaw yi toll foofu lislaam du ci doyal lu dul lislaam nag bu ndaw yi bëree rek mu ne mooy yéen waaye bu dee lislaam moom day bëgg ndaw ñi bari ngeen baal ma mooy tax mu bëgg lislaam li lim bëgg su ko amoon góor góor seen quatre femmes lay am góor góor seen l'islam ba seen góor góor seen quatre femmes lay am femme bu nekk am treize gos fukki gos ak ñett égal cinquante deux gos ressource humaine daal di am ah oui sëñ Maar mii fi ne bu fekkoon tey am na ndaw yu ko topp mat ñaari million mbaa ko jege et campagne bi di ñëw nii ñépp ne acca force bi muy am tax na ah bu mu woo danga wuy si mu laaj la say kër seet ba xam juba nag ndaw ñam déet moo tax lislaam mbokk yi yitte woo ndaw booy bëgg a takk jabar mu naa bàyyil ndaw la say juddoo xel bu juddoo mu ne boo ko bëggee niteel noddal fii li xaamal fii watal rendi lam boo ko bëggee ndaw li ñëw bokk ci biir ndaw ñi mu ne yaayam nàmpale ko sam soow te na nga am jotam nag ndax kuy investir ci dara dangay bëgg dangay bëgg chiffre d'affaires wala rendement ci yëf yi moo tax góor gi nga xam ne mooy bàyyi mooy bàyyi xale bi taxawaay boobu lay am jënd xar xottil yaayam waa ay bokkam lépp pour ne am naa gan goo xam ne gi soo màggee liste bi dana yokk ndaw loolu bu yaayam bëggee mu mel ni moom da ko dul sori saa si nit bu nekkee ci biiru yaay connexion avec fil la am câble xale bu ne ci biiru yaayam câble lay connecté bu yaayam lekkee mu lekk ca bu yaayam naanee mu naan ca bu yaayam kontaanee mu kontaan bu yaayam meree mu mer liir bi waaw gis nga bi jigéen ñi commencé xewalee takk casque yi nii li sëñ bi takk nii boo ci tàmmee déglu alxuraan bu sa doom juddoo jërul bindal kiis li may wax nag dafa xewoon ci dafa xewoon ci at yee ñaari at ci ginnaaw Iran la xewoon xale buy jàng wax di tere bi rabbi naas ak bi rabbi falax docteur yëpp jaaxle waaye bi ñu gëstoo dañoo gis ne yaayam daf daan takk casque di déglu bi rabil falax ak bi rabil naas yi ndekete gone gaa ngi koy enregistré ma ne jeey jigéen ñi nga xam ne ñoom bu ñu takkee casque bi la ñuy déglu la ñuy déglu mooy ka dàqa way ca waykat yay way musique ka dàqa ndagar wale yooyu la ñuy déglu moo tax bu seen doom yi juddoo ñoom it dañu judd rek commencé di fecc te kenn tàccuwu leen waaw moo tax ndaw soo ko soo ko waajalee noonu dal jàng jot nga tànnal ko jàngalekat ecole jot nga tànnal ko école bu baax teg ko ba muy dem ak dikk ba njàng meeg yar bi def ay jeexantal ci moom soo ko woo ci social mu wuy si la ndaw loolu boo ko woo ci social mu wuy si la ndaw loolu boo ko woo ci économie mu wuy si la waaye ndaw loolu boo ko woo ci politique mu wuy si la dañ koo gàttanu nag waaye bu ñu ko gàttanuwut ndaw dafa mën a toppandoo ndaw dafa mën a toppandoo te kum xas faa nag yow mbokk yi ndaw soppim penc moom la gën a yomb ci ma gis nga Firawna dafa mun régime bu baaxul bu metti boo xam ne bi bu apartheid la woon gone yi jóge woon ca seen baay Yaaqub fekk si seen frère Youssouf ndaw ñooñu la doon métital guddeeg bëccëg sunu borom bëgg dindi loolu au lieu mu ne paa yi dindi leen ko déedéet mu am benn liir bu juddu ñëw pale liir baa ko dindi ca ba màggee kon ndaw su bëggee soppim pénc te fekk ñu waajal ko soppi ko du jafe dem leen ci démbi lislaam benn xale bu duggoon ci lislaam ñu koy wax Musab yonent bi yebal yebal ko Madina ñaari at la fa am Madina gépp topp ko ñaari at la fa am Madina gépp topp ko bu ñu ko gisee ne ko yow de ki gis ki la ku gis ki la yar yaru ndaw loolu ñuy waajal nag dañoo bëgg mu def ci xelam ñett ñi ko yar def ko ci moom ndaw dañoo bëgg def ci moom tatalloo tataloo mooy ndaw loo xam ne yëg na ne may nañ ko liberté def nangam fi ne ndaw li ci kër gi buñ nekkoon yaay féetewoo duy butéeli ndox yi mu xam ne moom moo féetewu loolu xamaasa euh, gi muy am ci moom ak démocratie tax na moom day bokk boo laajee jigéen fi ne boo romboon ay gone ak i mag nga nuyu mag ñu bàyyi xale yi xale dañ la gàtt lu nuyu la léegi nag loolu day day feeñ ci ndaw buñ ko ñu def ko ci def ci moom at tahaddi mooy samp ndënd ndënd lu sampe rek ndaw ñeme na ko ñeme na koo fil ndënd lu sampe ndaw ñeme na koo fil ah eh, naka noonu ibiti kaar maanaam teel a jóg teel a jóg nag maa ngi si jublu teel a bokk ndaw dañuy fexe ba mu teel a bokk looloo tax boo amee ndaw am na fukki at juróom bu ca to bu ca dollee fukk muy ñaar fukk ak juróom wutali ko jabar ndaw day teel a takk jabar ndaw day teel a takk jabar 30 ans war naa fekk takk na bu yàgg ba amum ñaareel à l'âge de 25 ans na takk bu ca dollee yeneen cinq na ñaareel ndax yéex a ñaareel day tas këru ndaw dëgg la de imaam mii jàng na suurtu nabay bi sunu borom ne wa kawaa'iba atraaba loolu la borom wax de borom bi nee na ay jabar buñ maasiwut kër guñ nekk mu tas saa si ku takkoon ci alternance su maître jékki ba alternance Macky sàll ngay door a ñaareel ñaata moo at moo fi am 12 ans bi léegi génération bi seen magante ko nekk 12 ans kon boo takkee fële takk fii kii ay feemam moo yàq feemi kee bokku ñuy feem di laaj ko laaj ko ñuy takk ah ndaw bi ci tege mooy injaaz maanaam ndaw ne maa def nangam maa def nangam ndaw def ko bëgg trop waaye buñ ko jàppalee ci yaa def nangam rek mu def nangam ndaw ku bëgg loolu la yaa def nangam gisuloo mbër mu daan ca làmb jo li muy li muy def wax ne moom def na lu kenn deful mooy bàkku ndaw bëgg na ko lool bëgg na ko lool la ca tege dajale aw nit orienté leen ndaw ko dàq ku dul moom ndaw ko dàq ku dul ndaw loolu mbokk yi bu ko waajalee démb gunge ko tey orienté ko ëllëg ma ne lépp la man ci pénc mi jërëjëf ana ndaw ndaw yooyu lan lañ séentu ci ñoom ndaw lan lañ séentu ci moom mu war koo taxawe ci pénc mi boo bankee sa baaram ak tanmiya al wataniya ndaw moo mën a jëlee am réewam fenn yokk loola ba mu yokk moo tax ci ci ci tubaab yi bu ñu tàmbalee indi xalaati soreelem njur xalaati limitem njur dañoo dem ba mu yàgg seen réew ya daal di tàmbalee rak ci ay gone ñu walbatikuwaat sax léegi nag di neexal jigéen ñi pour ñu am ay gone ah ñi génn dem Europe xam nañ ci dara ñi génn dem Amérique xam nañ ci dara danay wax ne keroog bi France di jël coupe d'Afrique africain yaa ko jàppale mu gañe ko loolu moom ñuy seetaan football ñëpp xam nañ ko te man damaa bokk ci ndaw daal suqali moo ko dax ko dul moom ndaw lu nangu ndaw lu nangu moo gën a mën a soqli ñun taalibe bi aj màggat jéy bu ñu masaan xëy ci tool rek bu ngoonee mu jeex waaw buy bàcc gerte bu ñu xëyee bu ngoonee mu jeex bu ñuy bees bu xëyee bu ngoonee mu jeex bu ñuy for ay naaf lañ ko tuddee xaw ma loolu mooy mbokk yi ci force ndaw yi la bokk waaye dañ ko séentu ci ndaw mooy mu soqali ab goxam suqali këram suqali am réewam ndaw rekk mën a genn suqali gi bu àndee mag nag mu koy xelal ñaaral ba ci liñ séentu ci ndaw yi mooy ataxallubu ala tahaddiyaat ndënd yi sampe ndaw a war a ñëw jànkoonteeg ndënd yooyu ndënd bi gën a rëy ci ndënd yi nag mooy ndëndu ñàkk alfaqr ak ñàkk ak ñàkk mooy li gën a rëy ci ki samp ndëndam ci kanam xale yi ay défilé yoo xam ne xale yi bu ñu leen defalee formation jàppale leen mën nañoo jéggi ndënd yooyu am leen jàppale wu nag ndënd yi jéggi duma leen ndax dootuñu am xamaasa bi nga xam ne moom la war a am ba mën na song li war a song waaw soo seetloo tey gone yi dem euh, Espagne léeg-léeg ñu indi nit wan leen ne ñii dañoo faatu loolu loolu tiitalu leen loolu tiitalu leen de waar leen tiitalu leen li na ci ñoom kon su boobaa dangay am taxawaayu dama bëgg a jëriñoo li na ci moom te duma ko yàqal loolu mooy at taxallubu ala tahaddiyaat ndaw ñu ngi séentu ci moom jafeñ jafe ñi nga xam ne moo ne ci àdduna si ndaw mën a ñëw dind ko ba mu dañ bu ñetteel bi tatwiirul mahaaraat ndaw li na ci moom ci xalaat ku ko yàq li ñëpp ñëpp xaj danaay wax ne léeg-léeg romb ci am miir rek xale yi dessin fa dessin boo xam ne da ngay wax da nga jàpp ne kii bu machine doon dessin machine a ko def xale yi loolu lañ man almahaaraat mooy keewate gi nga xam ne moo nekk ci nit ndaw rekk moo mën a xëy tey dind ko ba mu dañ la ca tege mooy ndaw moo mën a yokk koom-koom yokk koom-koom téye capital moo tax bi lislaam di wax ñu jox jirim yi seen alal daf ne na ngeen bàyyi ba ñu xam lan mooy alal ngeen yëkkati ko teg seen loxo ñoom bu ñu yaxantoo balaa ginnaaw suba ñu indi lu toll lañ amoon ndax ndaw du sonn ndaw eh, bërki démb ci amerig fin nu dalaloon ñetti xale ya nga fa ñetti xale yi ku ne am nga ñaari liggéey ku ne am nga ñaari liggéey liggéey ci bii wàcc añ sangu gont ca bee fanaan ci bii xëy nelaw tuuti quinze heures jot nga sangu yi dem ci liggéey bi noonu lañ koy def parce que ndaw du sonn gis nga moo tax réew mi xam ndaw réew mi xam ndaw fu mu àggul rek ci moom la des boo bàyyee say ndaw nag seytaane soxla na leen seytaane soxla na leen sport bi soxla na leen waaye diine ji soxla na leen ku leen responsabiliser rek ñu dem moo tax ndaw ndaw ku am solo la ci penc mi waaye nañ dugal ci bopp bi nag li am solo wax naa la ndaw dafa dafa mën a toppandoo ndaw dafa mën a toppandoo tey ndaw yi dañoo gis rek jenn waa ju sol tubay ju foq ñu foq seeni tubay tudde ko jiin désiré defe naa lu nga waxe foq seen tubay yi léeg-léeg ci uum bi léeg-léeg ñetti foq-foq toppandoo rek am na ci ndaw ñoo xam ne ñoo gis waa joo xam ne day ruggi tubay ji ñoom it ñu ruggi seen tubéy daal tudd yolam geño ak bëri ay ndaw yu yu yolam geño ruggi seen tubéy ba ba mu wàcc am ci ndaw yi ndaw yoo xam ne bu nu gisee ku taal dara teg ci gémmiñam xëcc kooku la ñuy jàppee guerrier jan waaye nga nii bu subaa nga tàmbalee jàng di xëcc yi sëqat ba baa ngay mokkal di ci yi sëqët ba baa ngay mokkal hmm? am ci ndaw ñoo xam ne ñoom it fu fu bi tëggee lu mu leen sori sori jaral na leen wut luñ demee baali mas naa ko wax jënn waaye ma ne ko bu fekkee leen te xadur daa fekk na la fekkaale fi ren ngay continuer tux ba léegi yow doo champion ndax ab cigarette ni muy gàtte te fu mu la tox ma nga tox ko fu mu la tox ma rek nga tox ko moo koy misaal ci waa ji daa nekk Cambérène cigarette bi na ko tox ma booy tox ma mu ne ko mais fii dañ fi ay ko fi tox mu ne ko nañ dem nañ dem parcelle nga tox ma yàlla xam ne tox ab cigarette jaral na jenn waaye jóge Cambérène dugg super fay fukki dërëm wàcc parcelle mëy yi mëy yi mëy yi ba xolam sedd mu mu galax yooyu si ngom ñibbi siwaat ma ñibbi siwaat Cambérène yow defe nga ne champion nga kooku du champion cigarette bi mooy sampion ci moom ndaw lu jigéen lii li may wax ci ndaw lu góor lii noonu la mel ci ndaw lu jigéen jigéen dañ koy teel a maye balaa am fukki at nañ ko maye jigéen balaa am fukki at nañ ko may may ko jëkkër jum xamut moo gën a yomb may ko ku mu xam demal pencum laayin xale bu jigéen bu amee fukki at jëm ci suñu réew mi am fukki at ak juróom am na ci xale yu góor yi ku ko jëndal portable bu cher di ko ci defal crédit di ko féeree bokkam nag dem bi ma lay wom lu tax jëlu waaw sa sa audio bi kan ma la ko yónnee lakkali wit ndeysaan yàlla na yàlla yërëm leen waaw kon bu góor beeg bu jigéen bi bu jigéen bi nañ ko teel a maye lu ko may bu amee 15 ans am na koo xam ne kii ñooy ànd ñu ko wax génn moo koy génne xale yaa koy waxee noonu nag mos naa am émission ci albidaay ca rajo ba benn xale bu jigéen woo ma direct di laaj mu ne ma daam ko ma doon génnal ma ne ko fu ngeen jëm mu ko mu coupé <laughs> ah yàlla xam na ko kenn ki ne ma man dafa am lu may laaj ndax loolu trian la wala déet ma ne ko lan mu ne dama doon génn ak benn xale bu góor ñaari at ma ne kon de sori ngeen génn ñaari at kon sori ngeen bu waxtu jotee rek ngeen fotta su dee ngeen il est 18h45 ndaw lu jigéen loolu nag buñ ko teelee maye su màggee ne bëggul kiñ ko may lislaam ne na dindi leen ko waaye nag nañ ko may rek teel a may kii teel a takkal kii ma waxaat ko dafa woon mbër muñ daan wax falang falang ñu bari fii xam nañ ko xam nga falang moom mooy puus mu daanu moom korpañam bi moo doon falang mbër yi tuy mu daanu sonal si ba ne ko falang lu tax ko luñ tuddee la falang mu ne dóor mu daanu looloo ko may mu def ni loxo ma ne ko benn yax laa lu la may benn yax mu ne ko ñaari gone ma am ñaari gone ma jur waaway xale bu góor bi buñ ko teelee wutal jabar à l'âge vingt cinq ans deretam commencé guta néew doole commencé guta yàqu bu amee doom ci étape boobu doom jum am mën naa sawar mën naa néewi nelaw mën naa neexum xel mën na sax rafet waaye dem ba màgg door a takk ngeen baal ma nag xaw ma xombal waaye dakaar moom ngénteel paa xewi na fa xaw ma nag xaw ma nag xombal mais dakaar moom delloo naa laaj bi paa yi <laughs> yàlla xam na ko donc bi muy am vingt cinq ans alayhi salaatu wasalaam ci vint cinq ans la denc à l'âge de vingt cinq ans la denc denc sax ko ko mag kon ndaw nañ ko teel defe wutal koy baaraas nag digganteem ak naan sàngara ndax dafay rey ndaw ba noppi muy dund moom la sëriñ Saam daan wax gu weex tàll dox digganteem ak dorog sunguf la su gaa yi di jaay ki koy fóon bu ko fóonee tey fóon ko ëllëg bu ko amul ginnaaw ëllëg sa jar na ko rey nit pour am ko ñu dox diggante ak loolu dox digganteem ak lépp luy fa ci am xelam moo tax programme ndaw ñi lu am solo la programme bi ne ci dara tëdd baaxul ci ndaw am jot baaxul ci ndaw ah féex ci ci ay programme baaxul ci ndaw ndaw dañ ko orienté teg ko ci nangam alayhi salaatu salaam moo tax ci feebaram bu bi mu génne àdduna soldaar sa doon xari xare ji ca Rome Usaama la waxoon ne ko yaa jiite xare bi ba mag ñu naan ah ndekete la mu gisoon ci moom gisu ko ci ñële mbokk yi ndaw ku nee ngi ci moo tax lislaam di ko tudde maanaam wala fi ko tudde gone gone kon ku nee ngi ci nañ leen gàttandu gunge leen orienté leen ñu tege ci yoon wu jub lu penc bi soxla mën nañ ko wëndil buñ tege ci yoon wu jub ñu xamal leen fi ñu bokk ndaw ñu xamal ko fi mu bokk lim doon ak lim nekk lu koy xaar ëllëg mu xam li koy xaar mën caa am tey ma jeexal ci ndaw ñi li ëpp ci ñoom fi mu ne dañuy jàpp ne amuñu liggéey fekk na ah yi am ñu liggéey li des rek mooy loolu ndaw lii nab na bi ñu sécuriser ko gis nga seen xombal info mii xombal info mii ndaw la ca nekk di liggéey buñ ko sécuriser loon la muy liggéey léegi tey ngi am xombal TV xombal TV léegi tey ngeen am ko DJ ma la nekk ca taabal ja lee mu nekk bu ñu ko sécuriser la moom it waaye fi ne li may wax mooy nit day nam nabi ci dara nam nabi ci dara ba dara feeñ mu am fu mu ko dugal ñu ne ko tépp loolu nag day yàqal daw ñi ndaw danga koy dollil ci lim am waaye di su domp dompalam am di su ko santaasit ndax am na lu santaasit yàqal ndaw ji mooy sa morom yaa ngi def nangam loolu kenn ko wax ndaw ak jom ji fi ne am na xale jogu fi dem Espagne ak Nicaragua wala xaw ma di jaar dem Amérique di jaar foofu boo demee fi ne bureau passeport da ngay defee ne Sénégal yëpp a fa nekk nga dem aéroport dañuy rang bu ñuy yéeg. riz bi ñu tuddee cent seize ci ci New York moom danga nga dem tey yaa ngi Sénégal lu ko waral gone ñoo am jëm am ci yenn ci mag ñi santaas leen wax leen ay baat yu metti baat yu naqari ndax ne gone gu góor euh, jur la yara dala ko gën bu dalee ci noppam ku am jom keroog ko mujj gis yal na ñu yàlla boole dimbali mbokk yi maa ngi woo ndaw ñëpp ci joxante loxo maa ngi woo ndaw ñëpp ci connecté ñoom ñëpp moytu yi nga xam ni day xajamal dundu ndaw wala mu rey ko te muy dox ngeen nekk mbooloo bu leen carte membre di boole def leen ko bu leen daayiree boole def leen ko bu leen ittihaad di boole def leen ko fexe ba am ku ngeen jiital mu ne ci kaw ngeen tofal ci ñeenti ndaw kenn ku ñëw topp seen ginnaaw su ngeen bëggee dëkk bi set bu ngeen xëyee mu set bu ngeen bëggee dëkk bi leer bu ngeen xëyee mu leer am fulla lool ci seen bopp ne dégg xaar sunu borom dëkk xaar yàlla rek toog xaar sunu borom ñàkk am li seen morom yi amit bu mu tax ngeen ak dund gi jeex na dund gi jeexagul de saa si dund gi jeexagul de man de bi may jaar fii di dem di dem dakaar dañ maa colis xam ngeen colis gouverneur moo ne benn oto yóbbaale ko dakaar dakaar la jëm aw ma paas gouverneur amul paas mu may ma téeméer mu wàcc ko labaan am ndaw ku ndaa sàcc ko waaye fi ne jaar-jaar dafa baax ci nit jaar-jaar dafa baax ci nit rawatina ndaw ñi nga xam ne moom lañu am rawatina sunu ndawi xombal yi mbokk yi yàlla jàmm yàlla kenn ak seen njaboot ñi ngi may dee ne waxtu timis yu jot na ni ko président waxe woon léegi ñu daal di jël timis ji bu ñu sëlmalee jox ma sama kàddu bi ma daal di ñibbi yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci sunuy poos dara waa ji nag nee may wax xaalis waaye man def ci sunuy poos dara kii laa ci jublu waaw <laughs> salaamaaleykum wa rahmatulah incha allahu dañoo fas yéene yëkkati ay hadiya yu ñu war a jëmale ci oustaz Mansour njaay miy toog ak oustaz Mame Makhtar Sarr ak ku ñuy wax Pape Ndour nekkoon rakk ci docteur Ndour ci Kaba dafa nekkoon wëlëri Modou ba noppi amoon taxawaay bu rëy ci macha allah ci laabiram di toppatoo bépp malaat bu jógee fii xombal dem ci moom ni ko magam di defee docteur Ndour mu génn àddina nag moom moo du yëkkati woon àddiya yëkkati benn euh, ni ñuy waxee sargal tableau sargal bëgg ko koo jox ci ñi ko fi teewal Mansour Ndiaye njaay mii bu gisee ñu koy jox kaddu nee na. dafa nekk koo xam ne dafa nekk kër sëñ Mansour ñu bari ci ndaw ñi yi ànd ak Moodu nii ci ay loxoom lañ jaar moo leen yar gën leen a xiirtal ci tawxet bi gën leen xiirtal ci wasifa bi ba tey lu bari lu ne ci ñoom moom moo ko ci def moo tax ñu koy sargal fii oustaz xombal dañu am chance boo xam ne de bari euh, néew na fu mu am ndax sëñ Moodu Moustapha dafay amoon wàccuwaay Moustapha Mbacké bi fi jógee muy teg fi doomam mu si Mbacké Madina bi fi jógee sëñ Ibrahima Mbacké ñaamar moo fi ne sëñ Mansour it am fi wàccuwaay te dañuy dëgg ci nettali ñu ne Alhaji Malick dafa xoon ne xombal ab poot la ci Tiwaawoon sëñ Mansour moomu nag moom it nekkoon sagu xombal nekkoon wéttalu xombal bi mu fi jógee jabar gi mu fi bàyyi sëñ Mansour mi ci la boobu loolu nag moo tax ba lépp lu ñuy def da gis ne ànd googu dafa nekk ànd koo xam ne ànd gu rafet la ci ànd gu mbokkoo ci wàllu lislaam loolu nag sans xombal la kon nañ yëkkati hàddi yooyu joxe ko ويزيل عنك وساوس الشيطان ودع الذنوب كبيرها وصغيرها فالذنب يطفئ جذوة الأذهان وعليك بالشيخ المؤيد بالسند الحافظ الثقة الكريم الداني الزاني اللهم اشف مرضانا واقض حوائجنا وارحم موتانا وصل على محمد وسلم yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci rek ci suñuy poos dara salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu